war na ne ma mu amoon yëpp waaw jébbale na ko ngir xaal yi nga xam ne nii mu ngi ko yëg ci xajam ma ngay wax ak yonentu nag léegi nag ne ko yaa abal qaasim yaa abul qaasim bàyyi ne du caageen lu mu am doom ji tudd qaasim moo tax ñu koy woowee abul qaasim déedéet du loolu de waaye moom mooy séddale lépp lu yàlla di joxe sallallahu alayhi wa sallam allazi abul qaasim bi nga xam ne dim na iqsaam yi nekk na sama biir ak ngañaar yi ci moom marhum tagg la woon ñeel ko wasanaan ak ak bàkk yow abul qaasim bi nga xam ne bu may gën ci yow di wax ci yow maa ngi lay tagg ndax yow lépp lu wax ci yow nit wax ci yow rek ak tagg la sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay tagg bilan loolu mi si saw bu xam-xam ëllëti yi nga xam ne dégg nga laxaa ñeel na xam-xam yooyu imlaawun ak fite maanaam ak wax yu alayka ci yow minallahi bu jógee ci yàlla bilaa kaatibin ci dudu aji bind maa ngi lay tagg sababu xam-xam yi nga xam ne yàllaa la ko jox taamut kenn ku dox sa digganteeg waaw yàlla moomu ci xam-xam yooyu moo la ko jox direct rek laa de maa ngi lay tagg sababu xam-xam yooyu wa masiri saba maa ngi lay tagg ci doxog saba saaran ak weer bi nasrika ci ci dimbale la yonentu sallallahu alayhi bu daan xareeg xéeféer bu leen jegee lu des weer rek loo xam ne des na doxab weer ñu ngay tiit ndax ngelaw laay xupp tiitaange daal di leen ko yóbbul waaw moo tax mu ne surtout bi saba man yàlla daf maa dimbale ci ngelaw waaw penku ngelaw laay xupp rek tiital noonu ya surtout bi rox bi dimbal nañ ma ci bu may janook xéeféer yi ñu daal di tiit ragal ma fekk maa ngi leen soree li lu toll ni doxab weer loolu bu ko yonantu waxul woon kenn mënu gëm ne lu toll noonu nit dana ko ragale nit fakk ànd ma saba dafa mel ni ngelaw sabaa ruxaawoon ngelaw lu nooy la day ko fa yow fu neex rek nga yóbbu ko fa sallallahu alayhi wa sallam waa maa ngi lay taggis sababu ali tafal tafalta ba nga tafe taflee bi ay ne yi ci ñaari bëtam ya wakiltaahuma takum ci ñaari bët yi ramda waaji wanentu la maan mboolem seen faxadaa mu xëy naasiran daa ci xool bi ay na ci ñaari bët yi waaw dégg nga piccam oqaab fii xasaatin ci xeex boo xam ne ni laxaa ñeel na ko al oqaab oqaab li waawoon ak drapeau lay tagg yow mi nga xam ne keroog xare xaybar dang ne bu subaa danaa jox drapeau gi drapeau bu oqaab la tuddoon koo xam ne nii ku yàlla bëgg la mu bëgg yàlla Omar ibn Xataab ne may xoolu yakaar na man la ko yonent di jox saxaaba bu ne rek bëgg muy moom moo tax may ñaareel ku ko ku ko euh, rek la ko yàlla di jox ñaareel fekk imam Ali moom ma nga wanentu xalaatul sax ne moom lañ koy jox rek de yonentu xëy na ana Ali ñu ne ko dafa wanentu mu ne xool leen ma ko bañ ko xooyee mu tabli ci bët yi mu mel ni mosul wàññi wanentu de moo tax ne moom ma ngay xool dégg nga ci la jël drapeau bi rek saxaaba yi topp ko ba mu demee ba ca buntu ba rek waaw dafa xëcc buntu ba rek mu daal di daanu mu sànni ko sànni goo xam ne kenn mosul gis lu toll noonu mel ni kuy sànni rek ab xeer laa sallallahu alayhi wa loolu ci barke yonentu la ko bunt boobu gannaaw ga ay góori góor dajale nañ mënuñ ko yëngat moom kenn mu téye ko daal ko foqati mu dagg mu sànni ko rek laa wax te mbooloo buñ dajee mu ñu yëngal bunt boobu yow mi nga xam ne nii ci sa xar baax ci ne xal yi na amee karaama googu waaye ci nga ko taflee bënd yu wanante ga daal di dañ maa ngi lay tagg ci barke ma ci sababu loolu nga defal xal yi de kon karaama feeñ na ci imam ali mu la bëgg a jàngal ne bépp karaama bu feeñ ci wàllu yi rek karaama yonentu la taggab yonentu la wasakaraama feeñ na bi rayxaana tey nii ci ñaari fleur ya te mooy xasan ak xuseynu tiibuhuma seen ak teey min ka mu ngi jugee ci yow ñaar ñooñu koy leer gi nekk ci ñoom ci yow la jugee allazi mooy leer gi nga xam ne ni awdaatuhuma wala awdaatuhuma dénk nañ leen ñoom ñaar azzahraaw fatimatu way aji leer ba mel ni biddiw fatimatu sa doom jooju nga xam ne jugewut ci ñami àddina pom aljana gi yonentu lekkoon ci teraanga gi yàlla defal xadijatu yonentu lekk ca pom ci la fatimatu juddoo sallallahu alayhi wa fatima moom mooy jigéen ji nga xam ne mosul gis mbaax mbaax ak jigéen mosul koo gis moom rek mooy bu génn jigéen gu yegg ci maqaama xutbaan yetu moo doon xutbu zamanam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa Fatima moomoo moo jur Xasan ak Xuseyn ñoom la yonantu waxoon ñoom ñooy fulóoram ci àdduna maanaam ñooy ñi nga xam ne ñoo koy kontaanloo ñoom la bëgg Xasan ak Xuseyn leer lañ ko jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dénk ko Fatimatu nag ak imaam Ali ñoo ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ñoo seq waaw ñaari sëtu yonantu boobu nga xam ne ñu def leen a bëggoon lool yonantu nee na moo ay leer lañ xoon yàlla dénk leen ci ndigal aadama dañu di toxalu di toxalu ba yonentu génn ci Abdoulaye Alioune génn ci waa Abu Taalib rek laa wax de waaw mu ne seen ñaari leer yooyu nag mu ngi dajee ci Hasan ak moo tax Hasan ak ay leer lañ yoo xam ne ñoom la yàlla dénk Fatimatu Zahra mu ngi leer ci kaw leer kawteef su fekkoon ne baax ak kawe ak jege yàlla ak jege yonentu mooy tax a mucc ko xasan ak Useyn mucc waaye xasan Zeydu doomi Muawiyatu moo ko rey soxnaam ci la jaar ne ko tookeel ma ko rek mu dee danaa la jox miatu alfin miatu alfin boo koy wax ci compte mooy téeméeri junne waaye xam nga xaari sa compte benn miatu alfin waaw mooy ñaar fukki junne rek de ni France di wax cent olof yi noonu arab yi ñaar fukki junne rek lay toll ci jamono jooju ci la tookee waa xasan mu daal di génn àdduna bu doon baaxee tax a mucc xasan moomu baa mucc xasan moomu jabarama ko rey ci ndigalu Yezid doomu maa weetu moo tax Yezid moom ku rëbb la kooku borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ku yàlla bañ la ku yàlla ŋàññ la jële baayam saxaaba bàyyi nee na benn fuure mos naa wax ne man benn xale rek moo mos a gagloo lim ma gagloo mooy def ne ma loo wax ci Yezid ma ne rëbb naa mu ne ma kanaa ah, xamoo ne Muawiya sopp na doom rëbb naa ko rëbb képp ku ko bëgg rek de mu ne ko ah, xamoo ne Muawiya sopp na doom jàmm te Muawiya saaba la waa ji gag xamatul lu wax rek laa wax de lii daan la jàngal ne soxna su baax lu jar la jigéen ju gàttab xel def ko soxna wóorut ndax bu la say noon di bëggee xalak ci moom lañuy jaar moo tax ku bëri noonu ku ne ay soxnaam dañoo war a amam xel waaye soxna si dof baaxut nga déggee ci ne sax looloo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam fase soxna si nga xam ne yonentu daf koo takk <laughs> dégg nga wujj yi ne ko mu laaj wujj yi lu yonent gën a bëgg ñu ne ko bu ñëwee ne ko yàlla ma yàlla musal ci yow yonent ñëw rek mu dof jàkkaarloo moom ne ko yàlla ma yàlla musal ci yow na ko musal nga ci ku màgg euh, fase naa la xam nga ne kooku dañ koo tegal pexe lu tax yonentu fase ko ci lu yomb xam na ne ku mel nii waru nekk ci gannaam borom xel mu gàtt mii ko waru nekk nag soxnaam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> naka noonu it képp ku bëri noon bul wut soxna su dof ndax say noon ci moom la jaar daal di la xalaat rek laa wax de <clears throat> Xuseyn it moom dañ ko rey ca Karbala bu doon mbaax ak jege yonent bi sallallahu alayhi wa taar ak may mooy tax a mucc ko doon Xuseyn mucc waaye moom rek ci xilaafam ci lañ reyee Xuseyn daanaka moo ko rey rek de ndax mooy yebal soldaar yi kon moom moo ko rey moo rey Xasan rey Xuseyn moo tax ku ñu rëbb la bañ ko rey ci Karbala reyal nañ fa juróomi téeméeri nit juróom ñett fukk ñett ak ñett yépp ci banu Haasim lañ bokk ci ñooñ ci bi lañ bokk fukk ak juróom ñaar yépp nag doom imaam Ali lañ ñu rey leen ànd ak Useenu kunta nekkoon nga tuumi ma di leen fat ilayka jëm ci yow kama aawat comme nu mi tàppee aliyaa uyaa nuqtatayha nuqtatayha ñaari tombam yi leen xatti ci bind boo bindee yaa ni yaa ak ñaari tomb yi taqooxee noonu nga doon taqoo ak sa ñaari sëdi fu leen gis rek taf leen ci boppam sallallahu alayhi wa sallam noonu la leen bëggee woon waaye te xet woo ko rey de ña ko rey dañuy woote ne ay jullit lañ def nañ lu bon mooy rey sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa ak di leen ŋàññi te xam nga ne ñooñu taxuñ dara moom la bàyyi wax ne bu leen jéem mukk mucc ci làmmiñu nit ñi ndax nit ñi kenn mënu mucc seen làmmiñ na ngeen fexe ba defar seen digganteeg seen borom rek de te ngeen roy roy xasan surtout yonentu sallallahu alayhi Wasallam sallam mu ne bu doon kenn dana mucc ci làmmiñu nit ñi ko doon mucc quran gis lu ñaaw lu wax nañ ko bu nit dana mucc ci làmmiñu nit ñi ku doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mucc booy jàng taarix di jàngal Qur'an gis ñu wax ci yonentu lu ñaaw lu ne mu ne bu doon kenn dana mucc ci làmmiñu nit ñi ku doon sa xasan mucc benn waaye tiim na ko di ko ŋàññi di ko xas ba ne ko danaa la saaga saaga woo xam ne ba ba dugg ci bàmmeel doo ko fàtte bañ demee ba jege mbooloo ma mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko waxal li nga xam yëpp ci xaste ndax bu la mbooloo mi déggee danañ la duma mu ne ko kaw téef maa ngi seet ne yow satu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg nga man ma di la lor yow nga di ma fegal lor keroog la ko bañ baax lor de bàyyi na ngeen roy xasan moom rek de waaye nag bu leen yaakaar mucc màggalal min shahid ci ñaar yooyu shahid lay sa nekkul yun si yéen ma fàttaloo a tafu tafu musaa bayima seen ñaari musiba ya wala karbala du caageen karbala tafu fa lañ rey Xuseenu ca barab bu ñuy wax karbala mu ne musiba daloon tafu xam nga ne mënoo moo fàttaloo loolu yow mi nga xam ne sàggan nga bañ rey Xuseenu sa kaw Karbala yow mi sàggan bañ rey Xuseenu sa kaw mënoo maa fàttaloo musiba gi nga xam ne dal na Xasan ak Xuseenu nag moom lañ reyee ca Karbala <clears throat> amma Xasan dañ koo tooke mu dee maara sàmmut fii ma ñaari sët yooyu zimaamaka sa kóllëre mar usun waqad xaana xor na dëkk sa dëxal arosaaw njiit ya yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa xam nga ne ña nekkoon njiit ci jamono ji ñuy rey xuseenu ak xasan ñooñu sax muñ kóllëre sa diggante ak ñoom de ndax yaa tax ñu falu waaye xor nañ rey say sët yi nga gënoon a bëgg moo tax àddina mucc yombut ci <clears throat> abdaloo wecci nañu rudda cofeel wala xafisata ak kaaraange fil qurba ci jege ñaale la leen waroon mooy buñ la mënul defal dara yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu bëgg la dimbale ña waaye defuñ loolu waa ab dat feeñal la di baaba soxor ak mbëtt an naafiqaaw naafiqiya naafiqaaw yi day firi paxam mbëtt waaye lam na mu daal mooy naafiq ñooñu rey xasan ak xuseenu ay naafiq mujj nañ nag feeñal soxor gi nekk ci ñoom ndax mbëtt lu soxor la di baax bu ci na mu mooy soxor gi nekk ñoom ba mel ni soxor ak mbëtt mujj nañ ko feeñal dal di fecc ko lëre bëgguñ la jëmbalewuñ ña la jege bëgguñ ña la jege rey lañ leen def rek de wa xasar woo na minum ci ñoom xulóobun xol alaa man ci ki nga xam ne bakkat jooy na laa du suuf si faq dawum ñàkk leen wa sama wa samaan Xasan ak Useynu mi nga xam ne keroog bañ génnee àddina suuf jooy na asamaan jooy na ñoom seen xol boobu bañ mën a rey ñooñu rek laa wax de fab kihim na ngellan leen jooy mastataata la langa man jooyal ñaar ñooñu sa kemtulaay kattan inna qalilan naka aji néew fi azimin ci aji inna qalilan naka lu néew la fi azimin ci aji rëy min al musaabi ci musiba jooy mu ne jooyal Xasan ak Useynu loo man rek laa wax de ndax musiba bu rëy jooy lu tuuti la ca te xam nga ne ñaari sëtu yonent yi ñu daal rey ci jamono ji nga xam ne jamono ji jege yonentu la loolu musiba la musiba gënu koo rek laa wax de dafa am benn waay bu ñuy wax suddi borom xam-xam la mu toog benn waay waa i di xañ xatiraan gadoron nga xam ne dafay taxaw safara mu ne ko waaye lu xew ngay xañ godoron saa su nekk rek ndax danga ciy liggéey mu ne ko wallaay liggéeyu mu ci waaye man de ab miskin laa woon bu ñàkk keroog bu ma gisee mbooloo ma jug di rey waxu ci soldaar boobu laa àndoon soldaar ci laa bokkoon jublu woon rey ko nag waaye bant yi may jaay laa àndoon ak gaaña pour jaay leen bant yooyu pour bu ñuy defar seen xayma yi mhm. ma jaay leen bant yuñ daajee lu ma dundee rek moo taxoon ma ànd ci waaye jublu woon dimbale Xuseynu jublu woon it waaw xeex ko rek de benn bis jot nag ma tëdd gént yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga sëgg mhm. jël loxo ya teg ca kaw bët ya jaaxle lool ànd ak imaam Ali na ngi yore ndox mu sell di ko nandal ñi nga xam ne nii ñoom lañuy rey keroog ba ñu rey Xuseyn rek laa wax de mu ne ma mar lool ma ne imaam Ali naanal ma ci ndox mi yonentu ne ko xanaa du yaa dimbalee noonu suñ kaw imaam Ali daf koo bañ a nandal mm-hmm. moo wax wax imaam Ali nandal ko mu ne yonent bi waxal a Ali mu nandal ma ci ndox mi mu ne ko yow du yaa dimbale noonu suñ kaw nga bëgg ñu nandal la moo tax fu nit di amee jafe-jafe nga mën koo dimbale boo ko seetaanee rek xeex nga ko laax soo amee sab waaye muy nitu yàlla fuñ ko nar a néewalee doole war ngaa jub waaye boo ko seetaanee yow yaa dimbale ka koy lor ci kawam kii xeexul woon defu woon dara da doon commerce ji rek waaye ànd ak gi mu ñu xeex ak yonent bi ndax xeex ak Xuseynu mooy xeex bi di leen jaay nekk seen biir moo tax yonent jàppee ko waaw ku dimbale gaañ rek de ndax mënoon naa deexaale ci barab boobu barab boobu ku ko fekkee rek te xeexoo yow yow doo tus rek laa wax de ba mu ne yonent bi waxal imaam Ali mu naan dala ma yonent ne ko yaa dimbale gaañi suñ kaw muy yëramtalu yonent na imaam Ali naan dal ko gadron xam nga ne gadron safara la de mu ne mu jox ko gadron mu naan mu ne ko boobu ba léegi saa ma xeewoo gadron laay xeeñ fu ma dem rek moom laay xeeñ xam nga loolu du gént dëgg la su ñu ne ko aa yow de boobu nga lekk si mburu mu neex mi naan ci ndox mu sell mi gisuma ne àllaaxira da nga dajeg yonent bi sallallahu alayhi li ko yóbbee rek mooy fekk fu ñuy toroxale ku baax mu ne se mu ne tekk kulli yamin bis bu nekk ashura ashura la wa kullu ardin suuf karbala karbala la li kar bii ngir jàq gi ma jàq minum si ñoom rey gi nga xam ne rey nañ ko seenu tax na bis yëpp naqari ci man waaye tax na suuf sëpp fu ma xool rek yaakaar ne karbala benn suuf neexatul ci man ala bayti nabi e yéen waa kër yonent bi inna fuaadi naka sama xol laysa nekkul yusli di ko fàttaloo ankum ci yéen atasaaw njàqare yi yéen waa kër yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama jafe-jafe àdduna lu mu tat tat du ma fàtte jafe-jafe bi leen dal rey gi ñu leen rey njàqare yi àdduna lu tax ma fàtte ko musiba bu ñu teg seen kaw jafe-jafe àdduna lu tax ma fàtte leen xam nga nit sax man nga koo yërëm waaye nga dem ba sa jafe-jafe yu bëri yow nga fàtte yërmaande gi waaye man lu si ma jafe-jafe yu bëri waaw maa ngi am triste ak njàqare ca la leen dal xëyra an ñii lu mooy ne man nag fa wattu jooyal naa am lii sama mbiri laay jëm ci yàlla wata fii di jooyal gi ma jooyal sama al umura mbiri jëm yàlla baraaw kooku kooku ak ci kàttan xaw nga pexe xaw ma kàttan ci fayekul leen moo tax ma bàyyee mbir yàlla su ma amoon kattan kon ngeen xam na laay def ruba yawmin bëri na bis musiim bi aji naqari bi karbala ca karbala xafafat oyofal na baadu rus yi lenn ci musibaam yi azawraawu baxdaat mu ne bis boobu nga xam ne banu umayatu rey nañ Ousseynou sa yonentu ca Karbala bis bu naqadi la woon waaye nag alhamdulilah keroog ba nga xamee Banu Abbas faagaagal nañ waa Banu Umayatu ca Baxdaad képp ku bokk ci Banu Umayatu rek rey nañ la ba des doom yi Omar ibn Abdul Aziz moom laaruñ leen ndax moom commande la woon waaye ñu dul ñooñu kuñ ca reyu rek dañ laa xamut wala nga nëbbatu mu ne nag rey gi ñu banu umayyatu nag wàññi na nag waaw rey gi ñu reyoon Xuseenu jeexalul gaa njàq rek gañ am ci rey Xuseenu mm-hmm. ak musiba la màgg waaye wàññi na ko ndax fayekoon nañ ko lu mu néew néew wal aadiya noon yi mooy banu umayyatu ka anna kulla tariixin dafa mel ni képp kuñ daaneel minum ci ñoom as si xumbuus la wala fecc ne anu ci moom aliyu kaaw takaay leen ray sànni leen ca mbedd yee kenn suudul leen seen yaram yey nëpp waaw di la nekk ci biir ba di mel ni mbuus guñ dindi takaay ga rek mu ne fayeku googu ñu fayeku loo seen loolu sama xol ala bayti nabi yéen waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tibtum ngeen فتابتين المدهو تقليه يلم فيكم چين وتابتين أرساو جوي ملين جوي ينو أكرين انتي على محمد صلى الله عليه وسلم يني جرغو تاي متى تقلي ملين تق تقو جوي ملين جوي جوي قو تيلا أنا من دي عسان مدحكم ما عسان تقلين فإذا نخطب مجوي عليكم چين فإنني لكما الخنساء وما دي خنساء Xassane moo doon tàggatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man de ni Xassane mel ci tagg yonent noonu laa mel ci tagg leen waaye ni xansaaw mel ci jooy mboqam moomu di saxratu nga xam ne daf ko doon way ko jooy rek noonu laa mel ci yéen du ma dañ di leen jooy ngeen anaasa nit ñi ci lan ngeen nekkee sang ci bokk ak yonentu mu ne déedéet sang la waaye bi tuqaa ci ragal yàlla ngeen ci boole wasiwaakum ku dul yéen sawadatu def na ko sang albaydaaw xaalis wa safa wuris mu ne yéen yéenay sang piir ci ragal yàlla waaye ku dul yéen bu ko nit ñi jàppee sang rek xaalis ba maam na taxa wurus maam waaye yéen moom sang ngeen ci lu dul ci lu wurus pare na nag ci jooy xasan ak Huseyn ak tagg waa kër yonent bi mu ne wa feeñ na sa karaama yow yonent bi asxaabika say saxaaba alladina ñi nga xam ne hum ñoom alhudaatu ñoo di way jubale yi wala awsiyaaw ñooy ñeen dénk baadaka sa gannaaw fii naa si ñun sa karaama fenn si saxaaba yi nga xam ne nii ku génn seen yoon rek dëng nga xalku ñoom ñoo ñuy gindi wi ku yoonu saxaaba yi jub nga yoonu saxaaba yi nga ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la yonent dénk dénk ñu jihaat jottali diine ji nañ ko war a jottalee ballighu anni walaw ñoom la yonent dénk loolu sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne ñoom la yonent dénk xeet wi ngeen ñu jottali lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci yonent bi nañ fexe ba mu egg ci xeet wi axsano rafetal nag ñoom sahaaba yooyu sa gannaaw wal xilaafatu wuutu fi diine ci képp ci ñoom isaaun aji yen loola li ma tawalla ñeel la méngoo saxaaba yi de sa gannaaw rafetal nañ ñu la wutoo te kenn ku nekk ci saxaaba yi xilaafa am lu mu xelloo la Aboubacar xelloo na xilaafa ga Omar xelloo na xilaafa ga Ousmane xelloo na xilaafa ga Ali na xilaafa ga yàlla na yàlla gërëm leen ñoom ñëpp. axniyaaw way riis jikko mhm. boo leen xoolee yaakaar ne. ñu bëri xalal lañ ndax jikko yu baax ji nekk ci ñoom waaye dañoo doyloo doyloo ba nga yaakaar ne ñi xam nañ lu ne <clears throat> fekk fuqaraa way ñàkk lañ ci dëgg-dëgg xamuñ xaalis waaye boo leen xoolee nag ñaanuñ kenn doylu nañ di leen yàlla jox wala maa woowu borom xam-xam lañ ñoom ñëpp ay matun ay njiit lañ ci diine umaraaw ay buur lañ ña ca falu xelom buur lañ yore ña ca falu wut kàtt nag buur lañ yore <clears throat> ñooñu saxaaba yonent bi ñooñu la ko yàlla tàndal zahido dëdd nañ fi duniya ci àddina fa ma awri fa xamuñ almayru jeng ilayha jëm ci àddina mi noonu mu jugee si saxaaba yi wala rax baaw du caageen xemam àddina saxaaba yi ñu dëddu àddina lañ duñ def dara mukk ngir am àddina wala bëgg àddina mos ñoo jeng jëm ci àddina lépp luñ def rek jàpp nañ ne loolooy njub <coughs> arxasu yombal lañ fi la waxaa ci xare yi nufuusa mulukin bakkani buur yoo xam ne harabuha ger nañu ak moom buur boo xam ne aslaaboo ay rekkitam ay luy seeral wala axlaaw way seer la buur yi nga xam ne ay wurus lañ laan toog di sol yére wurus nga xam ne boo leen rayee boo simmee seen yére yi gis ne yu seer la ak mbaxana yi ñu doon sol buur yooyu saxaaba yi yombal nañ seen bakkan rey leen ci toolu xare ba ñu daanu kenn xamul ku leen suul rek laa wax toroxal nañ buur yi beew ya na gërëm allah anum ci ñoom waradu ñoom it gërëm nañ anum ci yàlla wala boog rad yee gërëm na allah anum ci ñoom waradu ñi gërëm anu ci yàlla kon fa annaa yaxtu naka lay jéego yi xataawun jum te ilayhim jëm ci ñoom saxaaba yooyu gërëm yàlla yàlla gërëm leen ñooñu duñ juum ku aw seen yoon rek jub ku ren noonu rek xal ñoom ñëpp zu ijtihaadin borom ak góorgóorlu lañ fi ahkaam yi ci ay atteem wa sawaabin borom ak lañ wa ñoom ñëpp ak faaw nawle lañ ku nekk rek mën sa morom fa mu nekk loolu mooy ay lañ waaye ñoom ñëpp seen i atte ko ci bànneexi bakkan dañoo góorgóorlu ba gis ne lii moo tax ñu ko moo tax saaba boo topp rek xamal ne la mu wax jub ndax kenn ku nekk ci ñoom la mu andi loolu jub jaa dikk na xaw mun aw nit min i xaw min gannaawam nit bi àqin ci dëgg wala mën a ci yoon alaxana fii ba ji jëng jaawu lañ andi gannaaw saxaaba yi nag taabiin yi ñëw nañ gannaaw ko taabiin taabiin yi ñëw nañ kenn ku nekk andi dëgg yoo xam ne nii waaw dafa dëppoo yoonu yonent bi sallallahu alayhi yoon wu nga xam ne dafa jub alaxana fii mooy yoon wu jub rek de wala nga ne gannaaw aw nit ñoo nañ mooy borom xam-xam yi tarixa gannaaw aw aw nit kon ñaari nit ñëw nañ ñaari mbooloo mbooloo mu njëkk mi mooy tarixa yi mbooloom ñaareel ma nag waaw mooy aarifoon yi yàlla yàlla boole ci ñooñu ñooñu yoon wu jub bu dëpp ak yoon yonentu sallallahu alayhi wa sallam lañu andi moo tax sax laa hadis ba ne xeerul quruni qarni suma lazina yalunahum suma lazina yalunahum mën nga cee ñett ñooñu man nga koo déggee ne saxaaba yi ñoo gën teg ci taabiin yi teg ñi ci topp man cee déggee ne jamono saxaaba yi ñoo gën gannaaw ga nag mooy jamono waa bi nga xamee tariqa yi feeñ na ñi di dugg ci tariqa di aw ci yoon yàlla ganaaw ga nag mooy ba waa arifoon yi feeñee di yeggal nit ñi seen borom maali Moussa dédd ñeel Moussa wala li sa dédd ñeel Isa xawaari yoona way sell wala nuqabaa wutu caagin ay njiit fi diim cee nag boo xoolee saxaaba yi yaandoon ak yonent bi da nga xam ne Moussa amoon ay njiit yu mel ni moom Moussa Nuqbaaw la amoon njiit yu mel ni saxaaba yi Moussa amut ko woon nit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a kawe nitu waaye xawaar yi mooy ñu seela ñoo ñu saa leen amoon boo xoolee saxaaba yi waaw da gis ne yonent yàlla Iisaa amul woon ñu mel ni saxaaba yooyu rek day moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nag moo ko moom muy ñëw nag benn benn saaba yi ci Abubakar ak Umar Usmaan Ali ba ci fukki yonent bi diggoon aljana waa haza haza inul islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh